يا لطيف لطف فأنت الذي منك يشملنا اللطف لطيف لطيف إنني متوسل بلطفك فالطف وقد نزل اللطف بلطفك عزنا يا لطيف وها نحن دخلنا في وسط اللطف وانسدل اللطف نجونا بلطف الله ذي لطف إنه لطيف لطيف لطف دائم اللطف فداركنا بلطف حفي يا زل العطاء فأنت الذي تشفي وأنت الذي تعفو أغثنا أغثنا يا لطيفا بخلقه إذا نزل القضاء يتبع اللطف عليه صلاة الله ما قال منشد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 muy ñaan wu am solo ci jamono ji ñu toll nga xam ni xat-xat yeeg coono yeeg tawat yeeg balaa yeeg mi nga fi ne xus ah, ñu moo waral ñu jiital bi ñaan di ñaan yàlla ci mbaaxam yàlla na yàlla jële fi mbooleem lu ñuy lëjal ci barke yonent yàlla Muhammad te wéral cër yi nampatal ñu xiirtal ñu ci boppam tabarakallahu di ziara Cheikh Mouhamadul Bachir ak waa Touba ma neen njurul ziara leen jox leen wàccuwaay bi ñu yellool waaye nuyu këru diine yëpp kenn ku ci nekk fekk nañu fi nga toog ne la jàpp loxo ne la asalaamaaleykum la ñu nuyoo Cheikh Ibrahim Ndiaye Khalil ñaanal ko yàlla def ko jàmm ak tawfiix ak taysir mu mel itam ñu ngi ci weer wu am solo te mooy rajab wax batayini ku sa birthday ñëw nga feete ko waaye bu fàtte fàtte birthday julli te mooy weer wi ñu nekk ci ñaar fekkeelu fànn bi ak juróom-ñaar la yàlla invité sayyidina muhammad alayhi salaatu wasalaam mu wuyu si ko subhaanallazi asra bi abdihi laylan min al masjid al xaraami al masjid al mbokk yi mi ngi noonu yàlla moo rañaane saydana muhammad alayhi salaatu salaam mbokk yi pour wax leen julli solo gi mu am pour wax leen julli euh, càkkuteef giñ ko war a cër bi mu war a am fii ci réew mi dafa des ñun daal balaa ñuy julli faw néew am ci koñ bi ñu daal balaa ñuy julli faw nu am aajo ñun daal balaa ñuy julli faw nu tiit ñu julli ñaari fan ñetti fan après nekk ci lañ newoon mbokk yi loolu dewul lu war waaw te moo tax waykat bu waxkat ba wax ni akrim bi man saraleetal xayri li diini diinan yaa fawzan lana waaw aw runuun bi salaatina hadiyatan mina samay haza minal karam waaw mu ni akrim wiiw bi man ci waa nga xam ni sara rañaan na rañaaneel na ko laylatal xayr guddi gi yiw ga li diini diinan waaw ngir dimbali diine waaw waaw moo tax koom koom koom koom la ci lan ci waajoo xam mi xoolal jullikat du fen mbokki jullikat du jëw mbokki jullikat du iñaan mbokki jullikat du soxor jullikat piir lu mu yéene lu mu yéene boppam lay yéene mbokkam waaw waaye dangay gis ñuy julli di gën a yées ñuy julli di gën a ñàkk ba ñuy wax dëgg ñuy julli di gën a iñaan ñuy julli di gën a soxor kën est-ce que ñu ngay julli mbokk yi est-ce que ñu ngi julli waaw nagam ñun ñi ngi julli di gën a soxor di gën a iñaan di gën a nay di gën a soxor di gën a am jikko yu xeebu yooyu te nee nañ ñu ngi julli waaw kon nag mbokk yi nañu seetaat suñu bopp ba xam julli yi est-ce que ñu ngi julli na mu waree waaw est-ce que ñoo ngi julli yi na mu waree xoolal fa yàlla fa yonent Muhammad alayhi dem jëli julli yàllaa ko rañaane asra bihi llaahu tashrifa li migmatihi xataara a mara a min ay hil jusumi yàlla moo invité sayyidina muhammad alayhi salaatu wasalaam asa rañaan na bihi ci yonent bi allahu yàlla tashrifa li migmatihi moo yéegee yonent yàlla muhammad alayhi salaam mu wuy si ko waaye ngir màggal darajaam waaw ngir màggal martabaam ngir yéege ko ci martabaat yoo xam ni mi ndef mësu koo am ba sax xataa raa maa raa min ay hintu simmi ba sax mu wan ko fa ay mbir yoo xam ni mbindeef mësu koo gis te kenn dootu ko gis ilal abad waaw xoolal boobu teraanga bi yàlla jox yonental Muhammad alayhi salaam mu dem kaw asamaan jëli julli pour wax leen rek solo ki mu am xoolal euh, euh, julli euh, zakat weeru koor aj Màkka yooyu yëpp yàlla daf koo paqueté def ko ci paquet àmbale ko def ko ci emballage bu rafet jox ko Jibril ne ko demal joxal ma ko Muhammad alayhi salaatu wa salaam ba mu jox ko ko mu ubbi ko muy weeru koor mu ubbi ko muy zakat mu ubbi ko muy xajjal bayt waaye xoolal mennum julli la yàlla invité yonent bi mu dem kaw asamaan mu jox ko fa lam ko fa jox moo tax ma nettali leen ci tuuti waaw ci loolu am na sax ñu wax ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci gént la rañaane am na ñu ko wax wazaaka waaye bii nag moom bii nag moom nekkul lu dul nekkul ci nelaw waaw ndax yonent bi su daan gëmm bët yaa ngay xoole su bët yi daan xoole xol baa ngay xool baa euh, xol baa ngay gëmm bu xol ba daan gëmm bët yaa ngay xoole moom joon makk alayhi salaatu wasalaam wazaaka fi yaqazin israan mën naa mi jëllum waaw moom ci misaal nit ku mën a waxee ci gént gént na jul gént na dem rañaani jëm ci boromam fanweer yoon ak ñett waaye bii moom nekkul ay nelaw fan la ko jibril fekk kër ëmb umm xën ban waxtu la waxtuy tàkkusaan jëm guddi mu fëgg ko ëmb umm xën ubbi ndax moo ko invité woon ba mu bee mu ne ko muhammad alayhi salaatu wasalaam sayyidina muhammad alayhi salaatu wasalaam laa soxla woon ñu ngi jéggalu ci baatu muhammad bi waaw ndax dégg nañ ci sëñ Babacar Sy Abdou Aziz mu ne day waxtaanee yonent bi ci zawiya ba waaye jàpp maan ko muhammad muhammad muhammad ndekk loolu maam Cheikh Hadja Abdou am na ci mettit waaw ba bi mu ñëwee wax maam Cheikh Hadja Abdou euh, papa maam dabax def ko ne bul ma ne papa nee ma Abdoul Aziz ndax Seydina Muhammad mi nga jàpp turam wa di ko sàllalu naan ko Muhammad Muhammad Muhammad te yàlla bu koy woo def koy jox cër ba mu yellool yaa ayyuhan nabiyyu ah yaa Muhammad yaa nangam yaa nangam waaye yow na nga topp ko naan Muhammad Muhammad kon nee ma Abdul Aziz xoolal loola kon bu ñuy sàllalu turam wi nañ koy wax Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam wala yaa Muhammad alayhi salaatu wa salaam ndax la ma am ci tur bari na loolu muntaha ah mujtaba mustafa muntaha yaasin taaha ak yeneen ak yeneen ak yeneen waaye lii ma mbokk yi nekkul ay gént jibril fekk si na ko kër uma haani ubbil nañ ko gisal naa ak yonente bi aleyhi salaatu wasalaam mën a ko tey sa boroom moo la invité invitation boo xam ni kenn mësu koo am te keneen dootu ko am moo tax mu ne la rafiquhu ruuxu fi istiftaxi ahlil sama bii baan wastabsharu min qaadimin qadimi waaw moo tax min qaadimin qadimi ànd ba moom Seydina Muhammad mooy Seydina Jibril moo ko doon sàkkloo ubbi bunti asamaan ya ba asamaan ya jeex waaw ngir laan ngir yoonam wa voyage ba mu am ci àndandoor waaw ubbi na bunti asamaan yi juróom-ñaar yépp ba asamaan yee jeex ba joon màkk yéeg lay cëpp moo tax sañ Fallou Mbàkke bu jul woon ak mbas mi ñu nekk kon tey jii Touba ñi nga waaj màggalu Kazu Rajab ndax borom galas Baye Mbeen moo ko daan wax sëñ Fallou moo daan wax naan yooyu na teen Muhammad daan ni coow wu yéeg mañu lay cëpp waaw yàlla talaan borom xikma bi sëñ Fallou Mbàkke yàlla yàlla fayal nu ko nga xam ne mooy sëriñal sama nijaay tonto Ibrahim Ba yàlla na yàlla defal ko jàmm waaw moo tax alburaq présenté na ko Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam alburaq ne ko aadama yonent la woon te war na ma Insa yonent la woon te war na ma Moussa yonent la woon war na sama kaw ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen waaw ñoo ñëpp ay yonent lañ woon te war nañ sama kaw Jibril ne ko mañel alburaq dalal kii bëgg yéeg sa kaw mooy xayri xalqillaahi kullihimi ñooñu nga ma limal ñëpp ci barkeem la leen yàlla bindee alburax ne tekk moo tax alal buraxi sara fil mu taxa lahumu jaal xilaaxu fara jeex jullikut bihimi waaw alburax la war raqa fawqa alburaxi ila samaa'i wa damna lahu malaayku ay yadiini waaw waxuma la raxaa yees nga dégg waaw weer na moom Muhammad fawqa alburax ila samaa'i jëm asmaan di juróom-ñaar nee na wa damna ay yadiini malaayka yi Euh, yi nga xam ni ñoo ko doon jàppale jàppale nañ ko gën ngaa rafetu jàppale waaw moo tax mu ne alay moo tax sayyidina Muhammad alayhi salaatu wasalaam ca kaw alburaax la waroon waaw mi ngi waroon ca kaw alburaax moom sayyidina Muhammad alayhi salaatu wasalaam wa fil israa'i qaalu xayra aslin ra'al mawla faqad tafa xayra diini moom daal war na ca kaw alburaax alburaax tollul ni waaye moo sut mbaam ñu koy woowee berkelle ñaari tànk laaf ak ñaari laaf ci la mag ñi wax nee nañ gaaw na gaawaay goo xam ni bu sëggee teg tànkam bu siggee fa ko beneen tànkam ba jox foofu la koy teg ku ne xanaa gaaw na waaw waaw day xuus ci jaww ji di naaw ci day xuus ci jéer gi di naaw ci jaww gi moom alburaaq waaw yéen ca Muhammad alayhi salaam war na ci kawam yéeg na ko jëm asamaanu juróom-ñaar waaye ñëw na ci asamaanu benneel fekk fa yoon ca la aadama asamaanu ñaareel fekk fa yoon ca la Aysa fa yoon ca la Yuusuf asamaanu ñetteel fekk fa yoon ca la Xanuux te bi Idris asamaanu juróomeel fekk fa yoon ca la Haaruna waxama Haaruna Haaruna laa asamaanu juróom-benneel mu fekk fa yoon ca la Muusa asamaanu juróom-ñaareel mooy fekk fa yoon ci Ibrahim alayhi salatu wasalaam gannaaw ba asamaan ya jeexee dem na Siratul Muntaha fekk fa mboolem yonent yi 123999 prophète yépp keroog daje nañ yoon ci Moussa yoon ci ibrahim moo moo noddu Moussa moo liqaam مصطفى مولن جيتي jiite ابن tax وتقدمت Mas'ud فصلوا كلهم مقتدين وأنت الإمام alayhi salaatu wasalaam waaw moo leen jiite booba leen julli waaye xam nga ne julli gënte riche boobu julli alayhi salaatu wasalaam yegg na ci boromam ndax temps bi ko may yegg na ci boromam moom Seydina Muhammad waaye baat yaa ngay jolli waaw li njëkk sax mu yegg alayhi salaatu wasalaam euh, yonent yi dan nañ ko laaj ne ko bàyyi bay donde daan woyee waaw taraqa njoon màkk yaa leen gën taraqa yeneen yéeg na ba xotti asamaan yooyu dem malaaka yaa ngi koy tàccu niis tuut ubbi asamaanu benneel ñu ne ko jibril koo àndal ndax sa riir mi foor na baaje na asamaan yi mu ne ko kii àndal mooy seydil muqarrabin te mooy seydina muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ñu ne ko kàccit ubbi waaw waaw mu ne kàccit ubbi buntu ya mbisigol ko rëkkal ko junne asamaan bi sante leen gërëm leen taraqaa njool màkk yaa leen gën moo la ko bàyyi mbay donne daan waaye yàlla na yàlla dolli ko leer te yi fi njabootam ya ji koy nuyu bu baax alxaaji Duudu kenn mbay Ahmad kenn mbay ñu ko ziyaar bu baax waaye nuyu bu baax euh, Abdoul Aziz Mbaye sama soppe ba yàlla na yàlla defal leen jàmm ak seen rek ak seen i njaboot waaw ak mboolam ki tagg Seydina Muhammad alayhi salaatu fekk nañ la fi nga toog ne la loxo jox la loxoy xol wax la asalaamu aleykum waaye baat yaa ngay jolli te ma yan baat gannaaw ba ci boroomam ataxiyaatu lillaahi azakiyaatu lillaahi attayibaatu assalawaatu lillahi waaw yàlla ne yoon ci muhammad assalaamu alayka ayuha nabiyu wa rahmatullahi moo tax mbokk yi nañu nuyuwante baatu assalaam waxuma ma ne la jaajëf bégee déedéet loolu du nuyoo de jaajëf bégee du nuyoo salaamaaleykum du nuyoo maaleykum salaam fayul nuyoo lay nuyoo mooy assalaamu aleykum lay fay nuyoo mooy wa aleykum salaam assalaamu alayka ayha nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalaamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah waxduhu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu lii may wax ma ngi xewee woon keroog ba yontan muhammad war a giseeg boroomam subhanahu wa taala mu war ko jox cadeau bi gën ci cadeau yi tamit julli ba tey rek maa ngi ñëw ak yéen ci cosaanal julli ana fan la ko Moustapha jële jee waaw ba mu demee ci boromam nag dalal na ko anta lazi naadaaka moo tax boykat ba wax ni anta lazi naadaaka rabbuka marhaban wala qad wala qad danaaka li qurbihi wa habaaka waaw anta lazi naadaaka rabbuka marhaban wala qad danaaka li qurbihi wa habaaka anta wasila maarufat sama beka xattamat wa tazayanat yàlla daal dalal na ko waaw dalal na ko dal na ko gën gi dal na ko gën gi teraanga waaye jox na ko gën gi kado te mooy julli waaw jox ko nag juróom fukki julli mu war a wàcce mu juróom fukki julli yooyu ay bu ñu ko ñun nga xam ni da ngay gis koo xam ni amul benn ngant moo tax mbokk yi yéeféer pire ki la gën a doon yéeféer mooy ki mën a ki la ki la mën a toogal yónne lëmb te jëwul jëm bi tekk ci suuf ci rujul benn ngant allahu akbar kaw ko kenn gën a ko doon yéeféer ak fu mën a bokk ak ku mu mën a jokk koo kenn gën a ko doon yéeféer mbokk yi waaw loo xam ne yàlla may ko yonent bi kan la koy may keneen ah loo xam ne yàlla ko yàlla maye ko yonent bi kan la koy may keneen Moustapha daan na julli ba biiram gi nuux ndax ñàkk lu mu lekk waaw wa shadda min sërabin axshauhu wa tawa taxadal xijaarati xasxan ma adami waaw daan na jël ay leggi xeer di ko takk ci biiram wi ngir mën a taxawal julli alayhi salaatu wasalaam yàlla jox ko juróom fukki julli muy wàcc ba ci yoon Yàlla Moussa mu ne ko kaay ma xool sa kado gi ba mu ko xoolee daf ko ne yéegaatal muy wàññi ndax temps bi duñu ko may yéegaatal Moustapha yàlla di wàññi ba mu juróom fukk ya ba mu des fukk mu ne ko yéegaatal mu wàññi juróom mu des juróom wasaaba mustanqisan li la xam si summa gada mustaxiyan inna zaakal badru euh, zul ratami ba mu desee juróomi julli Moussa ne ko yéegaatal mu ne ko am naa kersa am naa kersa am naa kersa yéegaat ci yàlla muy wàññi julli yi juróom fukk julli mu di ko wàññi ba mu des juróom te muy fajar tisbaar tàkkusaan timis gee nga xam ni lii yàqul daa ci sa temps waaw moo tax yàlla mi ngi wax ak gaa yi naan leen fa waylu lil musallin waaw euh, woo naa xurmee di tàkk ca safara ñeel ñiy julli tey tëbal nag waaw ñoo xam ne bu ñu jullee tey duñ julli suba wala ñu dajale waxtu yi baggee ñu rëppatal ko daal koy julli mu gaaw yàlla nee na woo naa xurmee di tàkk ca safara ñeen ñooñu waaw kon ñu dul julli ñoom lu leen yàlla di wax xanaa daf leen laaj ne yéen ñi nekk ci biir safara saxar lan moo leen fa yóbbee maa salalakum fii saxar ñu ne ko xaalu lam naku min al musallin waaw lam naku nut'imukum miskin wa kunna naqudu ma al qaidin waaw ñun daal daaw ñu julli daaw ñu leen miskin la leen yàlla wax des leen fa ñi dul julli yàlla ne leen loolu fi ngeen nekk lu leen fa yóbbee ñu ne ko ñun daaw ñu julli yàlla ne leen des leen des leen fa waa kon tabarakallahu juróom fukki julli ya njool màkk di ko wàññilu ci ndigalal yoon ci Yàlla Moussa ba mu des juróom Moussa ne ko yéegaatal mu ne ko am naa kersa yéeg waaw am naa kersa yéeg moo tax juróomi waxtu yooyu mbokk yi nee naa wallaay yàqul taawu kenn ñun ba ñuy nekk xale di jàng euh, nekk ca daara ja daan na ko jàng waaw fajar tis baar tàkkusaan timis gee naan la bariwul bariwul bariwul waaw daan nañ ko jàng ba ñu nekk xale ca daara ja bariwul mbokk yi juróomi juróomi waxtu yooyu fajar tisbaar tàkkusaan timis gee jàppal ni képp ku yóbbaale boru julli moo xam tisbaar la julli ko yaa nga ci li la neex moo tax tàkkusaan la julli ko yaa nga ci la neex moo tax timis la julli ko yaa nga ci li la neex moo tax gee la nga àttana am fitu julloo benn rakka moo tax sa maam Cheikh Ahmad Bamba nee la ku toog benn waxtu julli ko ci sa tayeef yaa ngi mel ni ku jaase bocc ko sa waajur wala sa maam seen xaj Malick nee na ku toog benn xale lu góor tëddee misaal misaalal ma daaneel mbokk yi juróomi waxtu yooyu képp ku ko julli sa maam seen xaj Malick nee na am nga yoolu ku julli juróom fukki waxtu wa tilka xamsun faridatin yakuna laha sawaabu xamsiina fi ixlaasi muxtadami kon nag mbokk nañuy julli Ah, juróomi waxtu bariwut jëlul sax ci yow fukki minutes waaw bu ko defee nag yenn yàlla def ñu dégg ak topp lu ñu indi woon ci tem sax mënuñu ko matal waaye ñu bay xel yàlla ci mbaaxam ak yërmandeem ci barke Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu allahumma salli wa sallim ala نبي أتى بالهدى والكرم اللهم صل